على إنني أثني على غير ملهم ولا أزكي الخلق بالفقد ألهمي على إنني أثني عن غزيالي من دلاله وبالألالة لا قل خنيتا تابا قل الكتابا واقبل متابا يا سسراء خنيتا تابا قل الكتابا واقبل متابا يا سسراء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan noo ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen balo ak di leen ko baal di am mbégte di yëkkatiwaat ay kàddu fii bu ngeen ak jataay nga at mu jot dana am benn yoon ci at mi muy jataayub fàttaliku waaye jataayub ñaan waaye jataayub sant kan lañ koy defal moo di Serigne Dame Touré moom Serigne Touba Xaadimu Rasul bis boobu nag moo war a dëgg malaat sëtam bu baax bii di alaaji Niis Touré ànd ko ak njaboot gi yëpp fas yéene ko amalaat le 10 mars di amee ci kër ga nga xam ne moo nekk ca sura bis boobu nag moo tax ñu toogaat tey jii di ko def nag ci ndigalul ki fi toogal Serigne Touba di Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bashir ñuy ñaan sun borom yàggal ko fi lool te dolli ak wéram waaye di ko def nag ci fu kilifteefu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Souhaïbou waaye nag ci njiitu Serigne Abdou Samad mi nga xamante ne bii mooy jëwriñu kër gi loolu moo tax Serigne Niis toog ay ay rakam tok ak magi taalibe tok toog ak njaboot gi yëpp ak ay xaritam fas yéene bis boobu ki ñuy njëkk a jox kàddu gi moo di sëriñ bàcc mbay mi nga xam ne mooy wax ci turu donga yëpp su daaneelee danañ jox soxna nday seen mi wax ci turu jigéen ñi su noppee nag sëriñ xaadim Touré kennal sëriñ Touba mooy wax ci turu alaaji niis su ko defee ñun ñëpp ñu maase déglu sëriñ bàcc mbay mi nga xam ne wax ci turu donga yi Touré bokk li bokki taalibe yi ñu ngi yëkkatiwaat sunu kàddu ci turu Touré ñaan mu yàgg fa lool te ànd ak wér ñu ngi yëkkati sunu kàddu nag jëmale ko ci ñi nga xam ne ji ñooy daayira yi sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Ousseynou Fall ca Pëleen Dëdd ak waa Ngébal waa Pëleen Dëdd gépp nee na mi ngi woo sëriñ ci Thiam ca Bayax ak waa Bayax gépp sëriñ Aliou Tine Fisel Mbadaan ak waa Fisel Mbadaan gépp nee na mi ngi woo sëriñ Ndam Deer Gëti Omar ak tundi euh, tundi Kajoor wépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ maam góor Badiane ak waa Mbadiane nen gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Fall ngébbal ak waa ngébbal gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Ousmane Touré ca Touré ngën ak waa Touré ngën gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo sëriñ Baddo Mbay ca sabb ak waa tund Romnaan gépp sëriñ bi nee na mi ngi woo Samba Fall arsantin sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal Mortara Fall Argentine di ko yëgal soxna Ayda Gueye daayira Maam Jaara Cotonou Bénin ak sëriñ Mamour Dramé Touba Lomé di ko di ko di ko yëgal ca Touba Niger di ko yëgal sëriñ Fall di ko di ko di ko yëgal sëriñ Fall nekk ca euh, euh, Burkina Faso di ko yëgal bokki taalibe yëpp bàyyilu kenn bàyyilu fenn bàyyiwul ñenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki julli di fi teew bokki yi maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di yëkkati sama kàddu ci ndigalu Alaaji Sëñ Nis di yëkkati sama kàddu ci ndigalul jigéen ñi kàddu jigéen ñi seeti Sëñ Dame Touré ak soxna yeeg taalibe yeeg ñëpp rek di woote bés bu mag muy sunu bés di bésu Sëñ Dame Touré bés bi nag di bés bu rëy lool ci nun nu doon ko waajal ba yàlla dogal mu agsi ci jàmm nu fas yéene ko waajal di woo jigéen ñi daayira Cheikh Aliou Touré baari kàlla bi noo ngi leen di woo buñ tuddee soxna Mati ture moom sëñ Bàcc ture tudd nañ ñëpp di woo daayiratul Daaru Salaam Sow bu kennal sëñ Xaadim ture kennal sëriñ tubaa di woo daayira waa Mbusoobe bi sëñ Amar Mbay jiite jigéen ñi maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn di woo daayira soxna maam jaara Mbàkke ba ca koñ ba Touba Soura te mu ànd kook soxna Ami Mbay di woo daayira soxna xaar ndaw ak jigéen ñi ñëpp rek di leen soññ di leen soññ ci li ñu weesu di leen sant ci li ñu weesu te di leen soññ ci li ñu dëgmal nu defe ko nan ko daan defe ndax wax dëgg yàlla jàmbaalañ ci lool daayira bi nga xam ne mooy daayira sëñ Daam Turé ba ca biir kër ga nag te sët yi jiite ko maa ngi koy jiite soxna Ndey Turé muy jàmbaar lool ci daayira bi taxaw ci lool sonn ci lool nu ànd ko ak moom ànd ko sëti sëñ Daam Touré yëpp di woo daayira Daaru Salaam Sow di woo jigéen ñëpp bàyyiwun kenn di woo mbokk yi di woo xarit yi di woo am di jàmm yi di woo képp ku yaakaar sëñ Daam Touré wala nga yaakaar Cheikh Aliou ngay sët ngay taalibe ngay lépp wonan la bàyyiwunu kenn di woo daayira bu mbar soxna maam Bousso Touré jiite ko di woo daayira bu ndaam soxna Xadi Touré jiite ko bàyyi bàyyiwunu kenn ñu ngi woo ñëpp di ñaanal sëñ bi mu yàgg koo taxawal te nu yàgg ko ànd ak moom kàttanug yàlla yoon si sëriñ Tuubaa sëñ Daam Touré yal nañ tàmbalee bisimilah rahmaani rahiim àggalee ko alhamdulilah rabil alamin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu leen ziara bu baax di am mbégte di teewaat ci kanamu sunu kilifa. alxaaji Serigne ministre xalifa Serigne Souhaïbou Touré moo am mbégte leen fàttali bis boo xam ni xam na ni kenn ci yéen fàttewu ko waaye alxuraan moo ñu santoon di leen fàttalekat ndax fàttale dina jariñ gannaaw bu mu ci amee ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi ni ñaanal mu yàgg fu ci ànd ak wér am ci ndigalul sëriñ Ibrahima ture xalifa Serigne Aliou Touré barikalla am ci ndigalul Serigne Ñamra ture xalifa Serigne Dame Touré ci kilifteefu Serigne Abdou Samad Mbàkke moom Serigne Souhaïbou mi buntam ci kër Serigne Souhaïbou ci Serigne Touba tamat ko sëkk sëriñ bi nee na mi ngi jiital woote bi ak fàttali gi daara yi kaamil alxuraan yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ak bitim réew yëpp di ñaanit it niñ ko daan defee rek lim buñ ci jàngoon jotal ko ko wala jotal ko njaboot gi nee na it mi ngi ci euh, beral ab woote euh, ki nga xam ni sëriñ Touba ko tànn di ko liggéeyloo ba tax ku fi nekkal sëriñ Touba mu doy la tax mu Cheikh Mahamadul Bachir Mbacke mu Cheikh Abdoul Xaadar di sëriñam di xaritam di wëllëreem te seen diggante yàgg lool te ñëpp xam ko. di ci beral ab woote it sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Souhaïbou di ci beral ab woote it sëriñ Fallilou Mbacke moom sëriñ Souhaïbou di ci beral ab woote it euh, sëriñ Bassirou Mbacke moom sëriñ Khadim Awaba di ci beral ab woote it euh, sëriñ Fallou loo xalifa sëriñ maxtar Bintoloo di ci beral ab woote sëriñ Ibrahima Fall ak njabootu sëriñ Abdoul Karim Fall gépp euh, di ko yëgal mboolem njaboot suñu tubaab gi yëpp rek. di ko yëgal it euh, ci njiitul fédération Serigne Aliou Touré Barikalla ci njiitul Serigne Khadim Touré di ko yëgal mboolem njaboot Serigne Aliou Touré gépp ak fu ñu mën euh, di ci beral ab woote it monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ak soxnaam soxna Marème Faye Sall ak premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne di ci beral ab woote it ministre Ali Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur di ci beral ab woote it euh, ministre Omar Youm directeur cabinet de Macky Sall di ci beral ab woote Euh, góor de la région li ci beral ab it sëriñ Abdou Lahad euh, Diakhaté chef di ci beral ab woote yi sëriñ Abdou Lahad maire bu Touba di ci beral ab woote euh, sëriñ Xaadim Mbacke moom sëriñ Xaadim Awa waaye di ci beral ab woote it sëriñ sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Souhaïbou ak mboolem njaboot suñu Touba yëpp rek di di soññaat nit ñi it ci taxawaay bi nga xam daanañ ko taxawee ci bis bi. rawat na talibé nga xamni ñu aju ci ci kër gi té buñ du waxé mëna wax ku mel aju aju soxna say boy ak mbolam yi nak ci ginnaawam yëpp ñu takku na ñaan takko rek e, taxaw nañu te teel ko wajal té ñi nga xamni ñu jógee fu sori di ñëw ñu ñaan suñu ñëw ci jamm fekk fi jamm ñu maagal ko ci jàmm barke Cheikhul Khadim ma ngi waaw bis bi it di nek e, le 10 mars ca wer wee lañu jëm nang koy soñi bu e, di ci beral la wote it xaritam monsieur Moustapha Cissé Lo premier vice-président assemblée nationale di ko yëgal it ma Madické Niang di ko yëgal euh, président Idrissa Seck di fa ngeen fàttali date bi mu ngi nekk 10 euh, mars ci kër gu mag gi ci Touba Assoura ci wetu jumaa ji incha allah. jërëjëf bokki jullit yi jërëjëf bokki taalibe yi ñoo jot a dégg woote baa ngi noonu bisub Serigne Dame Touré borom bari kàlla Serigne Touba mag ñi reg nañ joxal gone yi kon day mel ne xéewal gone yëpp. barakallaam joojee moo ko fi indi ñu ñaan sun borom mu fayal ñu ko loolu moo tax sëtam bu baax bii de alaaji Niis Touré at mu jot mu am boo xam ne da ciy fàttaliku cantam googee mu daan def Serigne Touba Xaadimu Rasuul muy jiital ci woote bi nag ki yàlla teg ci bopp yoonu murit te koy ñaanal yàlla yàggal ko fi loolu dooli wérëm mu di Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Mahamadul Bachir waaye di ci teg nag Serigne Abdou Samad mi nga xam ne mooy buntam ci Serigne Touba moom Serigne Souhaïbou Serigne Bachiru Mbacké moom Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy rek kaddu Serigne bi waaye Serigne Sidi Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad jëwriñu yoon wi Serigne Ibrahima Touré xalifa Serigne Aliou Touré Serigne Ñomre Touré xalifa Serigne Dame Touré Alaaji Nis Touré xalifa Serigne Souhaïbou Touré ak rakkam yëpp nag mu di yëgal nag Serigne Abo Mbacke xalifa Cheikh Mahamadul Fadal Serigne Cheikh Mbacke xalifa Cheikh Abdoul Khadir di ko yëgal Serigne Abdoulahad Mbacke moom Serigne Souhaïbou Serigne Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoulahad Serigne Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir Serigne Fallou Mbacke moom Cheikh Mahamadou Mourtala waaye di ko yëgal Serigne Moustapha Mbacke moom Alhaji Mouhamadou Lamine Baara Serigne Abo Mbacke moom Serigne Abdoulahad sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ Abdoulaye Karam sëriñ Abbas Mbacke xalifa mam tierno borom Daarul Moxti sëriñ abdullah Mbacke yàllaay buur xalifa mamor Mor Diarra sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ Massamba sëriñ Mor fatim Mbacke xalifa mam Cheikh Anta mamor maam Mor Mbacke xalifa sëriñ Balla Coro ak mbooleem njabootug sëriñ Mbacke Mor Anta Sali gépp di ko yëgalit njabootug sëriñ Ibrahima Mbacke Mbacke Kajoor di ko yëgal sëriñ Moustapha Mbacke xalifa sëriñ Baara xalifa sëriñ Sidi Muxtaar Mbacke diko yëgal sëriñ Mam Mor sëriñ May Mbakke khalifa serigne Cheikh May diko yëgal sëriñ Cheikh Jëmb Fall khalifa général de Baye Fall ak mbollem cheikh sëriñ Touba yi diko yëgal sëriñ Abdou Latif Jenn khalifa sëriñ isa Jenn serigne Sidi sar khalifa Cheikh Ibrahima sar Njaañ sëriñ Sidi Jenn khalifa sëriñ nar Jenn serigne Baara Touré xalifa Mor fatou Touré Madina sëriñ Babacar Ndiaye khadim rasoul Taïf sëriñ Abdou Touré khalifa serigne Aliou Mati Touré sew sëriñ abou Touré khalifa serigne Abdoul Karim Touré sëriñ Jibril Touré Touba Belal Serigne Mbaye Fall xalifa Serigne Modou Fall xonn Baye Cheikh Aliou Touré xalifa Serigne Mbacké Touré seew Serigne Cheikh Bey khalifa Serigne Mor Ma Bey Serigne Abdou Latif Diène xalifa Serigne Mbacké Diène di ko Serigne Fallou Bousso xalifa Serigne Mbacké Kanni Serigne Omar Bousso khalifa Serigne Mbacké Bousso Serigne Modou Mamoun Bousso imam Touba Serigne Abdourahmane Niang khalifa Serigne Bara Niang Serigne Khalil Sall khalifa Serigne Baye Serigne Sarr di ko yëgal Serigne Abdoulahi Diouf xalifa Serigne Thierno Diouf Lambaye ak Serigne Sohaibou Diouf ak mbooleem seex yi aju ci kër Serigne Sohaibou bu yëpp nee na bàyyiwul kenn di ko yëgal Serigne moo Moustapha Fall Mbar moom Serigne Modou Aminta Fall Serigne Seex Ummi xalifa Serigne Talla Seck Jambeeli Serigne Modou Mbacké si xalifa Serigne Moustapha si Serigne Mbay Baas soldaaru Serigne Touba Mbacké Baas Serigne Mbacké Ka xalifa Serigne Moussa Ka Thielli Serigne Mbay Guèye xalifa Serigne Mabey Guèye Serigne Ahmadou Diouf xalifa Serigne Modou Diouf Lambaye Serigne Modou Mbacké xalifa Serigne Seexu Sala Mbacké ngi koy yëgal sëriñ Galas Ndiaye xalifa sëriñ Mbay Ndiaye Banji sëriñ Thierno jaw xalifa sëriñ Mut Diaw Paxa ala sëriñ Alhaji Fall xalifa sëriñ Thierno Fall xonn sëriñ Fallou Silla xalifa sëriñ Mokhtar Silla di ko yëgalit sëriñ Moustapha Basirou Lo di xaritam di kenn ci kër gi waaye di ko yëgal nag njabootug sox sëriñ Soy bu jigéen gi ak njabootu Cheikh Abdoulahad gi bàyyiwul kenn ba ci njabootu Cheikh Salihu gi soxna May Abo bintu sëriñ Sohaybu soxna maam Xari Mbàkke bintu Cheikh Abdoulahad soxna maam Jeng Mbàkke bintu sëriñ Sohaybu soxna maam Marème bintu sëriñ Sohaybu soxna ummi Mbacke bintu sëriñ Mouhamadul Fadal soxna nday Soda Mbacke bint Cheikh Mouhamadou murtala soxna mam Fati Mbacke Nawel bint serigne Souaïbou soxna Muslim Mbacke bint serigne Souaïbou soxna mam Mati Mbacke bint Cheikh Mouhamadul Fadal diko yëgal soxna mam Fati bint serigne Souaïbou keur serigne Modou Habib soxna muhsinatu bint Cheikh abdullah had soxna mam isa Mbacke ahlu Café سخنا بنت مباكي بنت الشيخ محمد الفادل سخنا أيدا بوسو بنت سخنا خادي خادم رسول سخنا أمي فال بنت الله عبد الكريم فال سخنا كيني جوب مم سرين سيدي مباكي مم شيخ عبد الهد أك سخنا صودا مم شيخ محمد البصير نينا بايول مباليم ستي سرين توباي ديكو يغل لتم وكانسول مهتدين دي سخنا أستم باكي مم سرين عبد الله أك مباليم نمو جابوت نيب ديكو يغل مباليم دائري نك تي سنغال نك رواتي نا دائري نك تي بير توبا مينكو يغل دائري مواحب النافي واكر سرين دام توري daayira miftaaxul muna waa kër Serigne Souhaïbou Touré daayira xidmatul xadim kër Serigne Souhaïbou Touré daayira borom Touba jërëjëf ci njiitul Serigne Mor daayira ahlu kennal Serigne Touba ci njiitul Serigne Xaadim Touré kennal Serigne Touba daayira Oustaz Mbay Touba maçon Mbusoobe section Touba fédération Cheikh ali Touré barikalla ci njiital Serigne Saliou Samb ak Serigne Ale Niang Serigne Nis daal nee na mi ngi ko yëgal mbooleem koo xamante ne Serigne Touba moo joxoon sa maam ñaag ba yor nee na bis bi mi ngi la ko yëgal di ñaan ñëpp ñu àndandoo ak moom sant le ko Serigne Touba ci bis boobu nga xam ne ci la Serigne Dame Touré daan sant Serigne Touba Xaadim Rasul bàyyee ko njaboot gi muy jëwriñ ji di ko taxawu ànd ko kilifaam yëpp nee na mi ngi ñaan bis booba ku fa yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo adduna ak jooj alaxira wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ala innani usni ala